mbokk yi ñu ngi fii mooy juma masjid Quba jàq ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu jógee màkk di ñëw Madina fii la njëkka dal nekk na fi ay fan avant mu yegg Madina mooy jumaam bi fële soriwul ci kanam la moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam da daan ñëw fii chaque samedi macha allah ba wax sax ni képp koo xamante ni jóge nga sa kër jàpp ba sell ñëw masjidu Quba julli fi yonent bi sallam nee na di nga am tiyaaba yàlla dina la fay tiyaaba ku def umra ci beneen xadis boo xam ne Tirmidi moo génnee rahimahullah Cheikh Albani daal di koy wëral rahmatullahi alayhi mu ne salaat fi masjidi Quba ka umra ku fi julli mel na ni am nga tiyaaba ku def umra allahu akbar xool leen yërmande borom bi taala bii mooy jàq bi yonent bi sallam njëkk a tabax moom la borom sant ala d'ailleurs di wax ci alxuraan sa suratu tawba mu ne la masjidun ussisa ala taqwa min awali yawmin ahaqu an taquma fii ndax fiihi rijalun yuhibbuna an yattaharu wallah yuhibbul mutahirin jàq ji mooy jàq base boo xamante ni ci tawxiid ci wéetal yàlla ci ragal yàlla ci lañ ko tabaxee macha allah borom santal di ko tudd ci biir alxuraan kon nañu góorgóorlu yàlla na yàlla may ñu ñëpp ñu mën a ñëw aj ak umra ñëw màkk ak madina macha allah yàlla boole ci ay xaritam ah ñi feebar ñëpp di leen ñaanal ñu ngi ñaan yàlla na yàlla nangu ñaan ñu ngi leen di ñaanal ñu nekk ci ay tolof tolof nekk ci feebar ci hôpital wala ci kër yàlla na yàlla may leen di jóg ak jàmm yàlla na yàlla borom sant ala may leen wër ñu nekk ci ay situation yi jafe yàlla taxaw leen sàmm leen aar leen ñi gaañu yàlla na yàlla yërëm leen dugal leen aljanna ñu nit yàlla na yàlla may ñu dund bu tey may ñu mujj bu rafet leeruk bàmmeel taxi bés penc ñu nekk fak muhammad sallallahu alayhi wa sallam allahuma amin